bestiaux qui vénèrent des bestioles des bestiaux qui vénèrent des best Touba ou des best seeni maam ay best la ñu woon sëñ Bamba best la parce que sëñ Touba best la first maam Maodo first is first Baye Niass is first revolution first rival of Baye Niass mais ana seen doom ana seeni sët ana tey sëñ Bass Abdou Khadir Sonko merci beaucoup yeeri maire yëpp manifestation su daan ñëw koy fléchir nu mu def mais biñ ne grève de la faim bi merci beaucoup si combat lañ nekk day metti jël mais say coup moor yi ñoo la sonal ak booy bi la doon caméra kilifa saay mu feebar yéen ñëpp ku ci sibiru wax délire ku ci sibiru am lu la metti ku ci feebar ba janaxee am lu la dal les morts gars yi si gig ndi gàlle gars yi am na lu ko metti waaw Sonko mooram yi ndekete daaj na ko booy Sonko mooram yi escanté na ko Sonko mooram yi daaj na ko waaw Sonko nag moor jàpp na ko booy sincèrement moor yi jàpp na jàpp na suñu booy bi ñun tam neexu ba neexul moor yi les morts là ont touché le président waaw Sonko ndekete waaw xam nga lal lalu hôpital saa yi mu yóbbu la niveau yoo xam ne waaw waaw da ngay maarifa dafa tasawuf ak maarifa du palpable Sonko il a eu le palpable il a compris que a trop mal il a compris que ne moment yi xoola béy woy na muus Ken mënatul baal kenn fu mu toll barki sëñ bamba kenn mënatul baal kenn foog ñu dem ba jeex tàkk sonko bàyyi na grève bi de ajandi ko fi le vendredi prochain bu génnu day du gàtt si grève am ndax du signé billahi du signé il ne va jamais jamais signé boo génnee noppil boo génnee sonko bu génnee bu doon ñuuma bu demee Ziguinchor une semaine live te ba pare tam bu génnee amul tam droit dem Ziguinchor déedéet day dem Ziguinchor ndax mooy suñu maire. li Macky Sall buggoon def yëpp damay toj élection dumal yi dumal yi non non non élection yi mënatu ko toj fu may tëjee waxtaanu biir néeg ba tax seen waa ji sàcc bi génn fipp ndax Macky da leen ne nañu fexe teg condition yoo xam ne man damay bokk. day dem élection kon jëriñ ñuy wut candidat ana ñu leen ne woon Macky Sall day génnee tuuru candidat bi tey wax leen ma ko tuuru candidat boobu tam de soo moytu du doon candidat buy gudd fan. waaye eh, bu gàmmu teewaawoon passé kilifa bi saa kilifa yi kii mooy fekkee premier mi de mais deuxième mi-temps mooy 2024 bi. Marème Faye même boo doon wax ak ki lay caméra wal même boo doon foo. Il y a des images qui partent Quand les cornes ont parlé, après c'est le sang qui vient. Ah. nañ ñaan yàlla du nek deug yalla bu mu doon dëgg non non c'est pas vrai yalla bu mu doon dëgg sañu ko ñu ko xalaatuñ ko dëggoon tipse ndax mom da tam tipse bopp bi maa ngi dégg nag Sénégal ñu bari di werante ci ay gars fi ku nek da nga am ay moment de folie ñu meen ay tipsem la yor de sa nga la dem sani xeer ba naan ma def nañu seytaane ba ree yéen ñëpp crise cardiaque mu ñëw def ko Touba ngeen def ko événement kii dem kër patron bi sànni ay xeer saw fa laabuwul ñëw kër mbindaan bi kër jànk bi taxaw di foo ngeen bëgg <laughs> def ko événement non man Sénégal je me retrouve plus gars yi ittaxulaa moytu moytu leen suñu borom da ngay wax nit si diine ji ñu woo la sax di la wax ngay wax si yonent bi ñu lay tëkku yàq sa yonent te sëñ bamba doonu kum simple mun daan kër rasulullah boy murit jàngi leen kan moy muhammad ngir yàlla jàngi leen kan mooy rasulullah di ngeen xam ne nit ñi di wax ni gëm leen ñoo gëm sëñ bamba mais fi ko bamba yóbbu woon la ko gars yi yóbbu woon gars si al anam nous sommes des bestioles tekkiw ñu dara ñun ñëpp a yem ay doomu aadam lañ tekkiw ñu dara ci xeyul sangu borosu wo 2 jours 3 xamne do dara nak sa xel duñu dara yeen nguur dem leen si al anam di ngeen xam ne duñu dara ndax yàlla nee na la bindaay bés boo taxawee xeeñ bés boo soxlawee say bases xoolal bases ni yàlla sàkkee saf saw mënoo ko téye foog nga saw ko téye baa duñu dara téye puub kenn mënu ko duñu dara sibiru kenn mënu ko maîtriser si duñu dara nekk bëgg a fëgg sa dina mën a mën a mën a mën a mën a dama koy rey duma ko rey mu tey rey ngeen Ousmane Sonko rey leen ko bu ci sa njaboot desee looy wax kon pour cause guddi na ci manifestation yëpp laay wax manifestation kaw diaspora Sénégal du ma leen nëbb gars yi li ñu leen ne gars yi léegi xeexatuñu dañu commencé di saboté pompe buy génnee ndoxu Touba boobu boo ko fa tegee du ñu am kàttanu yëkkati ko ba koy saboté waaw wala déet nawet bi loo sànni dara xam nga du tàkk mieux vaut nga roñ ko yóbbu booy félicitation pneu oto yi waxoon naa leen ko no ñu nekk côté bàmbay jëm Diourbel ah daa mel ne affaire <laughs> oto yi gaara si yoon bi daal bëri na alhamdulilah tam man nee naa leen damay jëf soldat laa du ma jëf ak civil boo ko jëfoon civil xam nañu fi nga jëm bu yàgg mais pompe yi nag moom Moussa Fall comme nee nga yow yaa ñuy dékku ñun ñëpp yaa ñuy jaay ñun ñëpp pompe yi boo leen ko bëggee ji gis wax naa leen ko de da ngeen may woo sama numéro bi du leen jox numéro Sénégal man ngeen di dugalal paypal ma jox ko boy pour ñu nokkat leen àll bi fu leen neex dem jëli seen pompe mais man samay boy non ma wax leen fu pompe yi pompe yi réer na saraxe naa ko comme dañuy rek ngeen taxaw ne carrément on sabote xeexatuñ di ngeen xam xeex moo bëri façon déjà internet bi waa APR yu bëri man dañoo couper seen internet non seen facebook ndax lan sonko biñ leen dur dur dur dur dur dur dur dañuy nekk biir Touba xool xam nga nag lu ma si neex biir Touba gars yi sañuy seetaan Sonko dañ lay message si suuf naan kara <laughs> non c'est honteux bu biir Touba sañoo seetaan émission Ousmane Sonko bu biir Touba seen portable ñi defoon ay ki écran na koy tudd écran de veille xaw ma écran de door mooy photo Ousmane Sonko boobu ci nekk mooy da ngay taal sa portable comme boole comme man rek sama portable sama ni gayna bi laay gis écran de door yooyu noonu booy dañ ko nani nii rek ñu jàkkaarlu Ousmane Sonko loolu Touba sañoo ko fa aywa laaj li fa nekk sañuñu ko ana sëñ Tuubaa bi doon xeex ak islam bi félicitation su Ousmane Sonko fu Ndeye Khady Ndiaye mën défier système judiciaire bi yow nga mun a défier système étatique bi fu Ndeye Khady Ndiaye mënoo fenloo toute une institution Ndeye Khady Ndiaye kese di jigéen mën leen fenloo wan na lor mën leen fenloo am doom bu góor comme sama bos bi félicitation si ça waaw man it félicité waaw dama am dama am ku mu neex am bébé félicitation Sonko li nga def loolu la dawoo dafoo jinna jàpp la xeex bi yaa ko mëne moment bi yaa ko teg si kon yow yaay gañe xeex bi par force mu lay neex di la naqari peuple bi seen job moment bi ku yaakaar ne peuple bi xeexuñu billaay da ngay nax sa bopp xeex du deratu kese xeex du deratu kese booy xeexal ku la gën a mar deret da ngay naan dëtt ba doo laal deret bi wala nga épuisé ko à travers moralement maman si vous ma Macky Sall vous savez que moralement il est fini li mu prévoir woon yëpp jàpp nañ Sonko état de siège Moussa Fall président du Sénégal ngeen xañ ko Moussa Fall booy stop au sabotage waxat naa leen ko de ku dugg Touba mu may jege sa antenne bal lañ lay door nga dee maa ngi waxaat Moussa Fall présidence lañ ko xañ président de la république dafa la door gars état de siège Macky Sall dem yoonam mu ay douze setam buntu pale, tout le monde se tait li mu yor kenn yoru ko Moussa Fall à gauche on va te tuer froidement xam nga nee ñun dañuy wax duñu jëf dañuy wax duñu jëf code bi ñun xam nañ ko Marème Faye ko déclenché non léegi gars yi yéen ñëpp ngir yàlla rek boo leen di live Marème Faye ko def ku ko def tam ñu tëj la xamal ne Marème Faye moo la ko njëkk def dinañ ko jëli ñoom ñoo ko féetee xam naa lu may wax dinañ leen ko wax après ban kilifa mooy dóor mais foog gàmmu teewoon passé pour ñu xam fi mu jëm basuma basuma mbare félicitations la diaspora félicitations toute la diaspora sincèrement félicitations tous les patriotes mun ngeen ba sonn billaay sonnoon nañu wante félicitations à tout le monde d'avoir résisté d'avoir résisté maintenant au bout de l'effort c'est là que l'effort commence c'est actuellement que l'effort doit commencer parce que c'est actuellement le début du grand combat le début du changement d'un système et de mettre un système patriotique et nationaliste France de un carte de séjour Allemagne un carte de séjour Belgique un carte de séjour Hollande am carte de séjour Italie am carte de séjour Espagne am carte de séjour ñu ne ñoom ñooy ñan Union européenne ku nekk am sa carte d'identité France am carte d'identité ñëpp am carte d'identité ñun ñu ñëw defaral ñu carte d'identité CEDEAO c'est de la foutaise c'est de la foutaise tey foofu laay tëjee ndax fa laay commencé après gis nga foutaise yi ñuy timee fii maa ngi koy lire léegi je commence à trop comprendre c'est de la foutaise carte d'identité CEDEAO c'est de la foutaise totale Assimi Goïta fait tes propres d'identité nationale malienne les Maliens, par les Maliens d'abord. Après, les cartes de séjour seront décernées, seront décernées aux autres. Les cartes CDAO, c'est de la foutaise. ngeen baal ma nag dama xam lu bëri ci lu may wax Union africaine ndekete bi foofu c'est de la foutaise xam naa lu may wax c'est de la foutaise parce que Europe fii Union européenne ñoom ñëpp ñoo yore seen carte d'identité bopp bëgg ñoo ñu ñu jox ñu benn carte d'identité ñëpp c'est de la foutaise bés bu lii amee président fii lay jaar dootul ñàkk élection ba abadan carte d'identité CEDEAO boo leen xamoon ban danger si nekk ndekete bu ko Mali amoon nii Macky Sall mën na dem foofu voteloo ay carte d'identité CEDEAO gars yi carte d'identité CEDEAO danger bi si nekk mën nga ko defarale ay Maliens mais nga defarale leen ko Sénégal def ci seen yëpp il suffit que waa Mali jox la seen fichier wala il suffit que benn Côte d'Ivoire jox la fichier nga remplir ko yokk ko sa fichier carte d'identité CEDEAO c'est foutaise même vote électronique carte d'identité CEDEAO dafay fausse vote vers la communauté économique vers une communauté monétaire africaine oui mais pour le nationalisme moom pour les cultures non waaw moom chacun reste nationaliste chez lui les Français sont les plus grands nationalistes du monde basuma basuma mbare